waaw li fi dajale euh, enrôlement permis de conduire parce que comme ni ngeen ko xamee euh, ci Mbour warul woon a am centre bu ñuy enrôlement permis de conduire parce que centre enrôlement permis de conduire est ñu capital régional. capitale régionale euh, grâce au leadership de du ministre de Omarium, le ministre des infrastructures man daajam dem naa gis ko wax wax ceetaan ci ak mu mu ànd ci ak man ba ñu mëna indi fi ben unité donc d'enrôlement mobile. unité bi nak boy xol presque Sénégal ñëpp koy soxla avocat avocats, euh, diplomate mais on a tout fait pour au moins une semaine ñu mëna a nekk fii ak wa Mbour enrôler chauffeur Mbour yëpp euh, loolu moo moo ñu indi fii tey mooy suñu tank tay fi té inshallah on est en train de négocier euh, avec les autorités du ministère pour au moins mang ci waxtan sang ak préfet. Nous koy gërëm tamit parce que nous avons fait un ko ko a il a accepté de façon très volontaire donc euh, ñu ngi négocier nu ñu fexe ba prolonger délai bi au moins nous avons fait pour un mois. Oui, pour cette première semaine on prévoit peut-être plus de 2000 pour cette première semaine mais nous avons ko yokkee ba ba 5000 wala en fait l'objectif c'est d'épuiser vraiment le stock qu'il y a ici à Mbour C'est notre suñu objectif fexe ba tout le stock qu'il y a que les Mourois n'aient plus à se déplacer, n'est-ce pas, pour sortir du département, pour euh, euh, ñu bañ département bi Mbour pour affaire enrôlement permis de conduire permis de conduire dans dañoo bëgg euh, à terme nous avons une unité bo xamni day day day de façon pérenne Nous di tous les services parce que Mbour bo xolé légui deuk la bo xamni presque tous les services régionaux yu bari amna ñu Mbour yu bari amna ñu Mbour centre de services fiscaux mu ngi fi c'est un service régional parce que Dakar nous sommes le seul département hors Dakar bu a un centre de service fiscaux boo jëlee également euh, tribunal de grande instance de Fenani, ni Mbour département à part région ñoom qui fi am département mais particulier euh, c'est une une ville particulière du point de vue population du point de vue économie du point de vue euh, leneen loo jël rek vraiment Mbour mérite na que tous les services de l'État que l'administration bi rapproché wu ci administré ci nit ñi loolu moom la moom la dox ñun chaque jour quoi. waaw waaw parce que euh, déjà biñ duggé sank rek amna na ku koy wax sank ni mom da doon waaj dem vraiment euh, Thiès xaw ma Fatick la wax fofu la doon waaj dem mais bi déggé li ma ngi dugg léegi bureau préfet mu ne ma am na ku ko woo naan ko dama bëgg nga recommander ma pour euh, Fatick mu ne ko nga dara donc ni vraiment li ni di wax ni élever une épine du pied defal nañ ko comme ni nga ko waxee dañ ko di parfois deux jours à fatigue. dem di di di di dem Dakar te ñëpp xam ni loolu yëpp ay dépenses la perte de temps la boo ko éviter tax vraiment ñun tam ñu xar suñu lépp loo xam ni service la bu bu population sénégalaise yi di am waa mbuur kenn du leen te jiitu. dem su guddi rek euh, maa ngi doon waaj pour tey su ma xëyee ma fajoo di dem cees te leer na ma ne su ma demoon tey cees fii ginnaaw suba le 2 wala le 3 ci laay mën a def sama permis de conduire. alors ma toog tey jii nii ba ñu yombalal ma lii nii mu doon lu may kontaan lool di ko rafetlu te aussi di wax ne ñu ngi remercier ministre bi ak euh, daajam bi. ci déplacement bu ñu facilité man ak sama yenen morom di leen ñaan nak comme nuñ ko waxé li continuer ba Mbour waa yëpp mun ci bénéficier wu merci c'est ça. en français.